laaj dépense bu matul ak kenn du kaas euh, parce que euh, voilà guddi gi dafay neex te xam nga ci dara Pape sànni alors beneen sujet bi <laughs> euh, ñu wax <laughs> dëgg la xam naa ci dara ak Ibrahima Anne <laughs> beneen bi ñu bëgg waxtaanee mi wàllum yoon sax ci nañuy des Moustapha démb ñu commencé jaloog bi ci wàllum yoon Euh, dégg nañ la si déggaat la si mais euh, quand même dafa am solo pour ñu taxawaat ci tuuti parce que euh, moom le président de la République tenir na fa discours bu am am solo nee na jarul ñuy def inquisition di wut ay coupable ak yu ni mel mais nañu fexe ba yoon en tout cas gën a fi nekk ak sénégalais yi ñu xool en tout cas par ay stratégie par ay moyens ba fexe ba réconcilier waat en tout cas askan bi ak li nga xamante ne mooy justice en tout cas euh, suñu jàppee discours bi ba Bassirou Diomaye fay def démb defe naa moom il a wane yoon euh, xam euh, wax lan la lan lay xaar ci ndaje yooyu ñu teg mhm. et boo ko dégloo ba pare da nga naan moom jaanam wàcc na léegi ñi ci des mooy ñi ñu dénk liggéey bi mhm. parce que su waxee ne nekkuñu ci benn inquisition mooy genre je ne sais pas nu ñu ko war a tuddee ñëw di di joxañ nit naan euh, euh, diw moo fi def nangam ak nangam ak nangam nekkuñu fi di wut ay coupable en fait. Mm-hmm. ay enquêtes yu sélectives oui am voilà am nañ benn benn problème. Mm-hmm. mu justice du Sénégal ñun ñëpp Sénégal d'accord nañ ne. Mm-hmm. nii muy doxee mënu koo continuer nañ ci wut ay solution loolu je crois que képp ku ci ku bokk ci waxtaan woo da nga ci war a dem ak état d'esprit boobu. état d'esprit wu ñëwuñu pour joxañ ma Samba ñëwuñu pour joxañ ma Demba dañu ñëw pour xool quelle et la solution qu'on ma Masamba ak Mademba ba ñëw ca ca ndaje ma bañ war ko fa joxañ ñu yoon boobu yoon boobu ñuy ñuy soppi moo leen mooy war a lijjanti seen mbir buñ toppee réew mi mhm. buñ tooñee réew mi cest à ñu dañu nekk si moo xam ne gis nga man quelque part je me dis ñu ñamoon ñun ñëpp muy ñun justiciable ñi nga xam ne ñooy àtte mhm. seen citoyen yëpp ñu ñamoon rek di respecter mhm. li mu li muy tëral jafe-jafe doo am c'est-à-dire que tey pap nit mën na la mën na la tooñ mm-hmm. saaga la dóor la def la lu ne ngay continuer di bokk ak moom benn bureau di liggéey bu fekkee ne yow da nga jàpp rek ne yoon a ngi fi et dina leen àtte c'est que loolu mooy njëriñu yoon en fait mm-hmm. yoon dafay permettre euh, euh, nit ñi di bañ a fajal seen bopp et su ma gisee ci ci euh, ndaje bi Bassirou Diomaye Faye ne nekkuñu fi pour di joxañ kenn war a di wut ay coupable li mu bëgg a xamle foofu mooy bu kenn joxañ kenn mm-hmm. bu kenn joxañ kenn su amee ku war a joxañ mooy justice bii ñuy waxtaane Mm-hmm. suñ ko waxtaanee ba pare le le travail continue la vie continue mm-hmm. beneen boo xam ne man dégg naa ko ci discours am te mu am solo lool. te xam naa dina intéressé Ibrahima Anne mii di juriste mooy dañu mës a poser un débat. Mm-hmm. sur euh, euh, li ñuy woowee cordon ombilical. bu nekk ci diggante le parquet ak le ministère de la de la justice disons le gouvernement. l'exécutif. li ñu mës di wax mooy dañ ko war a dagg. am procureur boo xam ne day indépendant. du jot ordre ci kenn. man mii maa ngi koy wax démb te naa ko waxaat tey dama bokk ci ñi yàgg gëm ne président de la république moom warul bokk conseil supérieur de la magistrature. oui mais li nga xam ne moom nga dul xam très souvent. Mm-hmm. mooy ni nga ko yaakaaree yow yombewul noonu. Mm-hmm. et que les acteurs waxuma les théoriciens de. Mm-hmm. les acteurs les praticiens ñi nga xam ne ñooy ñooy prononcer le droit dans ce pays tous les jours ñoom boo leen laajee. ils ne sont pas contre le fait que le président de la république nekk ci biir conseil supérieur de la magistrature mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ils ne sont pas contre man wax naa dem ne discuté naa discuté naa ci ak un un magistrat très sincèrement que Pape Sané connaît très bien mu ne man nañ ci def ndànk parce que présence président de la république waxuma gêné waxul sax ne gêné wul mais daf ne dafa am solo ci mbir mi. Mhm. ci conseil supérieur de la magistrature. Mhm. démb am na benn communiqué wala boog benn texte bu ma liir boo xam ne lii l'union des magistrats sénégalais ñoom ñoo ko def. Mhm. seen recommandation yi je crois seen recommandation numéro recommandation numéro treize ou quelque chose comme ça dañu wax lu am solo parce que boobu dañu wax ci conseil supérieur de la magistrature xam lu ñu à la présence mhm. continue mhm. du chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature et de son ministre de la justice. ñoom magistrats yi ñoom magistrats yi. Mhm. cest dire que euh, quelque part di ñun ñoo am problème. avec le conseil supérieur de la magistrature. Euh, ñun ñoo am problème naan na ci président bi génn mais magistrat yi amuñu problème boobu ñoom. et ils l'ont écrit. moo tax démb bi Bassirou Diomaye Faye waxee ne nañu euh, euh, gardons-nous. de vouloir bâtir une république des juges dama ne mais c'est super et c'est très bien ça veut dire quoi que ni moom ak magistrat yi juboo nañ ci loolu léegi kay waxtaan wi mooy nu ñuy réformer conseil supérieur de la magistrature. Mhm. xëy na ba ibbil ko yeneeni i corps je ne sais pas. Mhm. parce que je ne suis pas spécialiste ci loolu. nan la ñuy réformer diggante parquet. ak ak le gouvernement. pour mu gën a pour mu gën a organiser wu ba ministre bi dootul def su ko Ibrahima su xoolee Ibrahima ne chemise bi mu sol neexuma mu ne na fanaan kaso tey. Mhm. suba mu ne Pape Sané costume bi neexuma na fanaan kaso tey comment éviter ça. mais pour les essentiel je crois que su jëlee le discours de Bassirou Diomaye Faye. ñu teg ko ligne de conduite pour ces travaux là mën na jur njëriñ lu bëree bëri loolu laa gëm. gardons-nous de euh, lan sax. Euh, de vouloir bâtir de vouloir bâtir. une république des juges euh, des juges yooyu kàddu la président. Euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëgti alors Ibrahima Anne euh, loolu rek dafay wane euh, que ni orientation ñenn ñi bëggoon jox yi lay dialogue nañ ko bàyyi parce que il est hors de question que ñu génne président de la République ci lu mu tudd conseil supérieur de la magistrature peut-être sax relation hiérarchique bi nga xamante ne dafa am ci diggante parquet ak garde de so aussi jarul sax ñu koy aborder parce que duñu dem ci boobu l'essence et loolu c'est je crois que c'est heureux que euh, dès l'entame des travaux président Bassirou Diomaye Faye yëkkati yooyu les kàddu parce que dafa mel ne bon il il il il est rentré dans la fonction présidentielle il a pris la pleine mesure. Mhm. de li nga xam ne mooy euh, enjeu bi. parce que euh, j'imagine que beaucoup de gens s'étaient réveillés euh, démb dem ci CICAD bi dans bon dans le dans, dans le secret des cinq ne bon peut-être on va faire là-bas le procès. Mhm. de la justice ou bien le procès des magistrats. te loolu bu ñu dañu fourvoyé wu c'était pas c'était pas le but du jeu. c'est pas le but du jeu le but du jeu c'est de voir justice bi bon Aïssata Tall Sall nee na c'est une justice boo xam ne qui n'a rien à vraiment qui n'a pas à rougir des autres justices mais qu'on peut améliorer qui est perfectible mm -hmm. maître aussi je crois wax na donc ñoom la particularité c'est que c'est des acteurs de la justice parce que ñoom ay avocats lañu mais aussi c'est des gens qui ont eu à assumer des fonctions de ministre euh, dans le gouvernement c'est-à-dire que euh, des fois les gens ils veulent une chose et son contraire parce que le procureur de la République des fois dañuy ils nit bon les gens souvent dañu naan le procureur il a beaucoup de pouvoir il décerne des mandats de dépôt parce que les, mandats de dépôt qui sont décernés les gens oublient c'est le procureur qui requiert mhm. juge mhm. d'instruction day appliquer rek day appliquer euh, on lui donne des soins transmis des des rek après il signe il signe il mooy vise ay articles il donne euh, boo déggoo sax les les baal ma les détenus politiques laa la wala les ex détenus ñu bari bu ñuy nettali dañ naan le juge Mamadou Seck parce que moom lañ ci gën a miin ñoom bu leen di décerner mandat ñu bari ñoom dañ koy nettali danañ leen daf leen wax clairement ne lañ ma sant je ne ci dara donc le procureur de la République ba 100 yi ñuy wax ak c'est ça c'est ça ay deux choses deux choses de se délester de ses pouvoirs c'est-à-dire ñu wàññi ñu ñu ñu wàññi ay dooleem parce que il délivre des des mandats de dépôt et man je continue à penser que c'est le procureur qui délivre des mandats de dépôt que il ne fait suivre mm-hmm. comme le le juge Mamadou Seck la l'a et d'autre part on veut dañoo bëgg aussi ñu couper ñu rompre le cordon bi nga xam ne moom moo ko lié euh, à la chancellerie au mm-hmm. maanaam au ministre de la justice mm-hmm. donc il faut qu'on sache que soit on veut des procureurs forts soit on veut des procureurs yoo xam ne qui sont à mi-chemin entre les procureurs forts et les procureurs faibles te man moom vraiment je suis pas pour les procureurs faibles dans société boo xam ne le banditisme le kii la la criminalité transfrontalière la criminalité intérieure ak euh, trafic drogue ak tout ce qu'il y a ici boole ci euh, saagakat yi saagakat yi les tous ces tous ces gens qui sur les réseaux sociaux pour a ah, pour rien ou pour un nom ñu la wala ils te ils te font des wala yooyu je pense que il faut que, que, que, que, les gens revoient, beaucoup, ou bien qu'ils réfléchissent beaucoup, euh, à, plusieurs reprises avant de, dominer les, les pouvoirs la République. Et euh, par ailleurs, je crois que, comment il s'appelle encore, Sarkozy, quand il a accédé au pouvoir en France, mm-hmm. euh, l'un de ses premiers chantiers, c'est de diminuer les pouvoirs des juges d'instruction. Mm-hmm. Des juges d'instruction. Parce que juge d'instruction, il y a une il est lié par li nga xam ne mm-hmm. a il a il a il a une plénitude il de compétences. te foofu je crois que foofu la war a xoolaat parce que foofu souvent. Mhm. loolu mooy euh, entamer un peu la liberté des citoyens notamment des des des des des politiques parce que. Euh, et des journalistes parce que euh, souvent seen infraction yi wala seen affaires yi ñoom ñooy ñoom la ñuy gën a médiatiser. Mhm. ñoom la ñoom ñoom ñooy les les les plus visibles. et beneen affaire bi aussi mooy que ma bon. man je pense que euh, vraiment c'est c'est des de bon c'est d'autres assises encore quoi parce que assises yu mel nii amoon na en 2018 je crois et amoon na aussi en 2008 et 2008 aussi c'est Isaac Yankhoba Ndiaye bi hmm. moom moo ko moom moo ko doon présider et 2018 je crois je crois aussi c'est lui qui présidait ça donc c'est euh, Jacob Jacob waaw mooy Jacob <laughs> donc Jacob à chaque fois on le rappelle je crois qu'il est à la retraite peut-être il encadre les gens qui font les thèses wala mais à chaque fois on et c'est pour débattre des mêmes choses. Mm-hmm. donc ce qui veut dire que les conclusions sont là xam nga li ci mm-hmm. appliquer. Mm-hmm. Euh, maintenant euh, je vais terminer par là et moi aussi j'ai lu le communiqué que que Moustapha lu le communiqué de. de l'UMS donc ñun on se fait pratiquement wala on veut faire le ni nga koy waxee encore soit on est l'avocat du diable wala on veut être plus royaliste que le roi. les juges. les juges dans leur écrasante majorité ils ne demandent pas à ce que le président de la République ne siège pas au conseil supérieur la magistrature. Mhm. parce que dafa ça offre deux avantages. benn avantage bi mooy que bu ñu leen bàyyee ñoom nen. oui ça peut être bon par exemple je président de juridiction. Mhm. Pape wala Moustapha Barke Demba Ndiaye la ma. il il il, il m'a bon je considère qu'il m'a manqué de respect. Mhm. mais c'est une occasion pour moi de de de rëqandigam de le sanctionner. loolu la benn loolu la benn magistrat woo woowee mu ne il faut éviter la toute puissance des chefs de cour. c'est c'est ça c'est, c'est exactement ça je l'avais même pas lu mais c'est exactement ça maintenant la présence du président de la République mais day permettre de d'arbitrer tout ça. bu xamee ne bon kii nii li mu li muy bëgg kii nii ce cour ce président de cour là li muy proposé nii peut-être benn vengeance wala benn benn benn acte de revanche la boo xam ne daf ko bëgg a jël. contre un subordonné. Oui. donc moom il il il il joue l'arbitre. et l'autre chose aussi qu'on qu'on qu'on oublie ou bien qu'on fait d'oublier c'est que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. D'accord. donc jusqu'à ce que la constitution soit réformée. Mm-hmm. donc te eh, les fonctions de magistrat eh, ou bien de juge d'instruction de président de cour étant parmi les comment dirais-je les les les plus hauts les de la fonction publique. Mm-hmm. donc dafay dafay dafay am solo. bien sûr te te ñu ñu ñu ñu bàyyi ko mu exerce donc. Euh, te te te président Diomaye Faye dafa wax lu am solo. Mm-hmm. Macky Sall disait la même chose. Mm-hmm. sauf que Diomaye il utilise des des des termes disons plus policés. que que yi yi yi Macky utiliser parce que Macky Sall dafa waxoon ne. moom la ñu fal. mooy président de la république. Mhm. Mhm. moom moo am responsabilité wu veiller ci paix mhm. ak stabilité réew mi. donc du bàyyi benn procureur boo xam dañ ko nommé rek muy jàpp ku ko neex heure bu ko neexee loolu mën na taal réew. je sais pas si yéen loolu. mais li Bassirou Diomaye Faye wax dem wuutewul ak loolu. qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye di daf ne nous sommes en démocratie. Euh, démocratie mooy lan mooy la gouvernement du peuple. pour le peuple et par le peuple et ça mënuñu ko exercer qu'à travers les élus yi nga xam ne ñoom ñooy exercer les pouvoirs publics point final ça veut dire quoi que ni moom mooy président de la république moom mooy Bassirou Diomaye Faye responsabilité wu euh, yenn décisions yi ci moom la gàddu parce que ci moo ci ndoddam lañ ko gàddu parce que moom mooy veille ci jàmmi réew mi loolu c'est exactement ce qui ce qui doit se passer le magistrat il est nommé le procureur moom kenn sant ko ne ko Euh, dañ la fal pour que Sénégal ne ci jàmm pour que Sénégal développé non dañ ko nommé ne ko voilà une politique pénale euh, nañ ko appliquer nii et cetera moom <laughs> ce qui va se passer après c'est pas son problème. mais après tout c'est le président Diomaye moom mooy rendre compte et loolu je crois que le président de la République a bien fait de le rappeler. Mhm.